jàkkaarloo ñi nga xam mooy jeune foire yi dañ leen laaj ba xam ñoom tamit seen réaction la la ci génn Sonko bi xam naa ne moom am nañ ci mbégte mais na ñoo xam mais am na ci génn Sonko bi sëñ bi ziar naa man de kontaan naa ci génn bi mais man affaire élection yi man affaire élection yi Macky Sall moom man yaakaaruma ndax dina voté dina am Sénégal man man yaakaaruma loolu parce que waa ji dafa bari pexe hmm. foo yaakaar fa lay génne hmm. fi nga yaakaarul fa lay génn mais nag yàlla nu yàlla defal jàmm rek réew mi yàlla yàlla jàmm sax fii rek uh-huh. loolu la ñu mën a dégg loolu la ñu mën a wax uh-huh. mais affaire Sonko bi moom de kontaan naa wax dëgg fa yàlla dëgg rek fa neex yàlla moom ni ma ko déggee nii uh-huh. seddal na sama xol parce que jamaay mooy Sonko Sonko mooy jamaay fii gay moom bu affaire yi amee ñu ngi ñaan mu am réew mi mu jël réew mi ah ñu xool mu gëstu zone yi quoi man loolu laa mën a wax waaw mais est-ce am <laughs> fii moom daal xam nga sa waay moom neexalul kii quoi wax dëgg fa la mais bu amee dina baax bu amul nag <laughs> boobu noonu moom moom boobu moom boobu moom boobu moom baaxul na wax dëgg fa yàlla. Mm-hmm. waaw mais am bi nag loolu la ñu bëgg lool la ñu gën a itteew am man Casamance laa juddoo fa laa yaroo Kolda mais bu bu élection yi bu nañ ko voté bu amee mm-hmm. fekkee day am mm-hmm. damay jël fii sama passe dem déposé Sonko laay daaneel carte. mais non Sonko c'est que dañ ko bëgg dañu gis waa ji ñu gis ko bëgg ko ñu xam ne kii li muy wax yëpp muy ci moom te moom dafa bëgg Sénégal te li muy wax yëpp yëpp gis nañ ko mooy xale yi mooy mag yi mooy ndaw yi ñëpp gis nañ loolu xam nga mooy loolu bilaay léegi nag fii moom lu ñuy ñaan rek élection yi am voté yi am ñu teg ko ci yoon sa waay réew mi loolu la ñuy ñaan man loolu laa amoon li ma doon wax wax dëgg fa yàlla franchement kontaan waaw kontaan Aïcha ba tey Aïcha ñu fi nga xamante ni mooy foire fekk fi seen foire yi macha allah ndax ku ne xam ne ne démb Sonko dañ ko libéré bàyyi nañu ko mais nag ñoom tamit am nañ ci ay réaction sëñ bi nuyu naa fay naa leen waa Dakar People maa leen di sant di leen gërëm eh, di rafetlu seen teewaay fii ci foire. Mhm. Mm. tur bi naka la Abdou la. Ah. Abdou Sarr ku ne gis na démb Sonko dañ ko bàyyi mu génn. bon euh, génn Sonko bi li dul euh, contentement defuñu ko euh, kontaan nañ ci génn bi lool parce nag ñun ñëpp ay sénégalais lañ te yéenewuñu kenn mu nekk foo xam ne doo mën a gis sa njaboot doo mën a gis sa waa kër doo mën a doxi sa soxla yoonewuñu ko kenn donc bu nekkee ci kaso bi depuis loolu bi léegi ñu jékki-jékki gis ne génn na loolu fierté la pour ñun mais également bànneex la ci ñun kontaan nañ ci daal macha allah. waaw loolu nag slogan waa Pastef la xam nga man bokkuma Pastef bon plus man euh, waa gëm sa bopp la mais bu ñu xoolee ba xam ne le projet de Pastef bi nga xam ne Sonko yéen woon na ko di dox ak moom Diomaye mën na ko yëgali mën na ci def li nga xam ne moom la Sénégalais yi soxla woon là aussi am nañ droit ne Sonko mooy euh, Diomaye Diomaye mais Sonko mais la man daal dama ne nit ku nekk euh, yow yaay yow yaay chacun est unique en fait donc kenn nekkul kenn ko Diomaye Diomaye la Sonko la pour man. ñu dégg ci information oui tout à fait loolu nag tey lay gën a leer parce que tey la cour suprême di statuer ci recours bi nga xam ne waa PDS dugaloon nañ ko mais en tout cas ñaaw na xel est ce que li président Macky def démb génne Diomaye ak Sonko est ce que du diversion mm-hmm. pour permettre au peuple sénégalais de réfléchir autrement ensuite mu daal di leen génne euh, ci kaw loolu aussi ñu ngi xalaat ne daal mën nañu repousser élection bi en tout cas tout est possible et avec euh, waaw loolu euh, xam nga rek par rapport ak situation politique u Sénégal euh, ni ñi xeex am ay dégâts matériels lu ne am ko ni ñi daj ko lu ne am ay yàqute ñu jëkki-jëkki am vague détenu yoo xam ne génnee nañ leen kenn atewuñ leen xamuñu ñoom ñoo def wala defuñu loolu nekk na situation boo xam ne sénégal yi man en tout cas en personne dama koy ñaawlu parce que quoi qu'on puisse dire mënoon nañ def euh, loi d'amnistie bi président après mën na gracier loolu yëpp c'est des prérogatives ne yàq nañ ko ma Samba moo ko yàq wala ma Demba mu xam kan moo ko faat sama oto bu ñu lakk ñu xam kan moo ko lakk loolu nag si justice soit faite ñuy pare suñuy voté une loi d'amnistie ñu voté ko pour rax seen casier judiciaire daal di leen génne mais jékki-jékki nag sénégale yi nekk fi am ñoo xam ne dañoo def prêt banque jënd oto ñeneen ñi def prêt banque teg seen entreprise ah, ñeneen ñi en tout cas seen doom faatu ci manifestation yooyu ñi leen gaañ ak ñi yàq loolu yëpp nga jékki-jékki génne leen ne leen dem leen ngeen doxat seen soxla comme mosoo leen def dara ça c'est man d'accord ci loolu noonu d'accord ci. ñu bëri ñuy garantie génne leen prix ne de détenus lañ génnee kaso yi te amuñ benn raison waxuñu ne ñoom ñoo def li taxoon ñu téye leen waxuñu également ne defuñu dañoo jékki-jékki rek eh, ubbi kaso yi ñi daal di génne loolu nag boo un état droit et que dans un état droit c'est la justice elle-même qui est la colonne vertébrale ñu daal di dox ba egsi foo xamante ni suñu justice dañ ko affaiblir au détriment de la politique parce que yëpp c'est des faits politiques loolu nag nekk a situation yoo xam ne ñun war ci jàngat mais askan wi en tout cas ku mel ni man ëkkëre wu na ci en tout cas mer na ci amul ci lu ko neex parce que nag la doon séntu mooy que justice soit faite l'impunité oui euh, oui c'est la première fois en tout cas bon euh, ci li ma jot a xam c'est la première fois mu jóg am euh, mais ce qui est sûr et mooy que ne ñun ñoo choisir euh, suñu république ñu fonde ko sur la laïcité. kii parle de la laïcité wax ne réew moo xam ne dara tënk ko maanaam benn diine tënku ko donc waxee ne benn diine tënk ko nag di nga sóor animiste bi di nga sóor chrétien bi mais di nga sóor jullit bi donc loolu yëpp nag bu demee ba tey élection wala boog campagne tombé ak weeru koor dañuy daal di nangu rek mënuñ ko repousser parce que ci weeru koor lañ nekk parce que loolu buñ ko defee day mel ni ah, chrétiens yi ak jullit yi ñoo moom réew mi te am na nag ñoo xam ne gëmuñu jullit gëmuñu en tout cas diine l'islam gëmuñu diine chrétien te ñu ngi ci réew mi dañ leen war a soor pour moi loolu amul benn impact bu mu war a def impact bi wala conséquence yi kay mooy que ne le fait de repousser les élections jusqu'à présent. Mm-hmm. looy wax président. moo wax ko ne nañu organiser des élections transparentes des élections libres yoo xam ne Sénégalais yi dinañ am rendez-vous avec leur nouveau homme. préparer wu l'avenir de leur pays en tout cas il a beaucoup fait pour le pays on doit reconnaître ça mais bu amee en tout cas ay fa yoo xam ne def na ko euh, ci mujjanteelu mandaam bii la koy def te na góorgóorlu bàyyi réew mi ci jàmm loolu laay lance appel lancé ko nag tous les candidats yoo nga xam ne tey ñu ngi wat sur le terrain di battre campagne la paix et la stabilité du pays dépend de leur discours nañu waxtaan ci seen programme te bàyyi di ngañante di xasante a yóbbuwuñu fenn mm-hmm. on n'a pas besoin de connaître que Ousmane Sonko dafa baax wala dafa bon wala Diomaye baax na wala bon na wala Bougane baax na wala bon na loolu yóbbul Sénégalais yi fenn mm-hmm. nañu wax programme bi nga xam ne moo war a construire ce pays là c'est ce qu'on attend des candidats ce qu'on attend du président de la République au-delà de ça bon euh, en tout cas c'était ça tout tout cas ah merci beaucoup mhm. merci. Aïcha ba tey Aïcha ñu ngi fi nga xamante ne mooy foire c'est jeune foire yi macha allah ndax boo xoolee démb Aïcha li ñu wax rek jomaay génne nañ ko ak ki nga xamante ne mooy Sonko mais jeunes yi am nañ ci wàll seen réaction gis na benn écharpe ki nga xamante ne mooy Ousmane Sonko mais du ma laaj ba xam Ousmane Sonko wala du la. waaw maa ngi lay fay soxna si. Mhm. ça va na waaw man man moom 100 pour 100 Ousmane Sonko laa ah. waaw vrai patriote démb bi nga toogee gis ñu génnee Ousmane Sonko ak Diomaye lan nga ah vraiment kontaan nañ si bu baax a baax macha allah ndax loolu la ñépp bëggoon vraiment am nañ si mbégte bu baax a baax a baax waaw vraiment waaw ñëpp kontaan nañ daal te lii tamit moo doon jàmm waaw vraiment comme yàlla def na génneen si jàmm bu naan bu muy dugg foofu dafa wooroon yàlla dimbali ko tamit muy génn génnaal fekk mu ngi si koor maanaam macha allah daal mhm. dañuy sonal seen bopp rek waaye Ousmane Sonko moom yàlla moo ko setal ba pare mhm. waaw. boo seen bopp la ñuy xam nga rek euh, koo xam ne moom yàlla moo ko taal mhm. da si ciy jéem a nangu rek waaye leneen loo si def loo xam ne bugg ko tooñ wala leneen yaa si am gàcc rek ndax Sonko boo ko xoolee rek xam ne yàlla da ko setal waaw kon nag lu waay mën moom. maanaam jàppale ko daal moo gën leneen loo si def moom sa kaw lay këpp rek waaw. xale yi ne dañ jomaay mooy sonko sonko mooy waaw loolu moom dafa leer moom amul pro sonko amul pro jomaay jomaay mooy sonko sonko mooy jomaay waaw. mais élection yi est que am ngeen si yaakaar parce que ñu ngi dégg ñu ne élection la. ah am nañ si yaakaar de voilà ba bu ñuy gis nag leneen nag waaye vraiment moom gisuñu lenn loo xam ne moom mun naa tere élection yam waaw gisuñu ko nag ndax xam naa ne bu ñu bëggee jàmm dëgg dëgg dëgg. wax dëgg yàlla ñu def élection yi mu jeex ni ñuy nekk si yeneen activité parce que dëkk bi métti na waaw te ni ñuy sonn neen waaw vraiment. mais instant bi ñu bàyyee Sonko ak Diomaye amul benn relation bu ñu def ci yéen. Euh, teyul xel. non xel parce que loolu lañ doon ñaan waaw ñun xamoon nañ tamit day métti rek ak day yàgg rek waaye yàgg yàgg dañ koy bàyyi loolu moom dafa leeral moom mm-hmm. waaw. Mm-hmm. lay wax Macky Sall. ah xanaa mu gëm yàlla rek. xam ne affaire yi moom comme jeex na moom waaw am na ñaari mandat jeex na jël na benn kandaam boo xam ne moom la wóolu teg na ko fi waaw élection yi nañ ko tëgg si jàmm rek ku yàlla teg si dëkk bi ñu xam ne loolu la ñëpp nangu ko rek loolu rek moo fi nekk waaw mais ñu nag ñu ngi ñaanal nag suñu candidat mu gagné waaw loolu lañ koy ñaanal waaw na méttiwu la ah. parce que instant moom yaakaar naa moom ku gis démb képp koo xam ne candidat nga moom bu yeboo nga dem toog bàyyi campagne ndax Sonko moom mooy borom dëkk bi. non Sonko moom moom réew mi. boo xoolee affaire nu mu demee rek xam ni képp kuy campagne moom. bu nga jël sa oto. nga bañ a sonn wala nga ñëw jàppale Jomaay coalition Jomaay président boo bëggee noppalu soo ko nag ah mbedd bàyyi noonu daal xam naa ne xale yi moom bu Sonko wootee Jomaay woote foofu la ñëw di dem. patriote xanaa ñu gën a gëm rek gën a jàppal rek. ñaanal suñu candidat bi yàlla may ko ndam bu sedd guy incha allahu rabi waaw. waaw ñoo gën a kontaan soxna si jaajëf. waaw ayca aysa ba tey ñu ngi fi nga xamante ne mooy foire ay ñu taxawal tamit suñu papa koo xam ne moom it wax dëgg yàlla am na ci wàll boo xam ne war na ci wax lu bëree bëri macha allah père ñu ngi lay di sant yàlla bu baax ndax euh, réew mi lii la soxla mm-hmm. waa ñu stade parce bon lii waroon na am bu yàgg. ah loo xam ne euh, Sénégal jàmm lañ ko xam bu ñu duggandoo ba léegi Sénégal si jàmm lañ ko xam mais ay bi non dafa ëpp dayoo dafa ëpp dayoo fu ne nii xelu ñëpp a jaxasoo actuellement ko laaj ku ne amul jàmm actuellement ñiy xalaat lan la ñuy war réew mi fan la jëm ah fan la ñuy teere ji lii jaru ko fii jaru ko fii ñu neen lañu sénégalais benn bopp lañ ko xamee xamee ku ñu bopp ñaar benn boobu fa nar a indi nag <laughs> ñu ñi jóg wax ak yow waaw loolu la ñu wax ak moom nag dañu wax ak moom nii dañu wax ak moom loo mu tamit dellu ginnaaw ginnaaw bu mu def nag loolu ñu ngi ko si sant di si gërëm du question que euh, dañuy affronter ak moom déedéet parce que jàmm la ñu soxla jàmm ji mu dellu ginnaaw nag loo ma tax ñu ko si sant di gërëm parce que sénégalais yi loolu la xam waaw loolu la sonk nag boo ñu koy jànj que ne que luñ ko saf bon am na am na liggéey am na liggéey bu rëy rëy rëy parce que sénégalais yi ñoo jóg woon que ne yowaa su Sénégal bu ñu jógee nag yowaa nag ab dafa am toogaay bu nga war a taxaw ak taxawaay bi nga war a taxaw loolu nag ñu koy xaaree si Sonko waaw mu mu jàppale nit ñi jàppale nit ñi mooy lan sénégalais yi sonn nañu sonn nañu lool ku ko wax ko waxul xam ne sénégalais yi sonn nañu sonn bu ñu sonn sa de xamatuñu fu ñu jëm xale yaa ngi jël bënn bi di dem di rey seen bopp si mais du question que ne bon dañu bëgg a xaalis du déedéet parce que jom moo leen yóbbee loolu jom bu ñu am loolu moo leen yóbbee loolu loolu moo tax ñu des si géej ji parce que daa ngi toog ak sa yaay ak sa papa ak sa mag bu góor wala sa rak bu jigéen tout ça affaire mënoo leen am loo leen mën a jox loolu kéemaane na trop loolu mu tax xale yi di jël mbënn bi di dem parce que bu faj buum gàcc bi buum gàcc bi nag buñ koy faj ko nege suñu gouvernement bi dañuy xoolaat seen bopp dañuy xoolaat seen bopp ci li ñuy def te seet si yàlla parce que suñu borom bu la euh, yeneen ndomb tàng suñu borom bu la ko jaglee am na nu taxawaay bu nga war a taxawee sa population pour dimbali leen nag lu la jox sa wërsëg bu jaar sa loxo rek mais moo moo ko boo ko xamee loolu da war a téye ak fukk loxo ak juróom séddalaat ci ñi si bokk mais nga ne yow rek yow rek loolu li nga amee yow milliards yooyu yow rek déedéet suñu borom jagle lool loolu dafa ne nga séddale sa morom yi nekk sa ginnaaw loolu moo tax mu jabootal lool loolu waaw loo mu tax def la kilifa nomb nomb mu la tàkkal lool loo mais nag boobu nag boo ko xamul nag ñàkk nga xel waaw loolu ñàkk nga xel lool waaw loolu rek laa amul. am solo après ñu ngi dégg ci information ñu naan élection dina am ak du am am du am loolu waruñu ko sax xalaat war mooy lu ma wax njàbbet taal bi lu ma la wax rek jàmm la ñu soxla jàmm jën fa la nekk élection yi dëmbal nii campagne yi doore ñi financé seen xaalis financé seen kii yëpp. na na fexe nag organiser élection yi mu am waaw parce que mooy jàmm réew mi nag élection mu am mooy jàmm réew mi mooy jàmm population bi yëpp waa manque si euh, entrepellé de que ne na jàpp élection yi mu am waaw bu bëggee jàmm réew mi na na na na jàpp élection bi mu am waaw loolu mooy jàmm réew waaw. mais Sonko bi ñu génnee ak Diomaye est-ce que actuellement jamono bi ñu leen génnee nii jamono ji ñu génnee nii tey ne xel teyul xel parce que kenn xamul lu mu programmé parce que moom njombar la. waaw da koy da koy nañ ko xaare côté bu nekk mais nag foofu tamit dinaa la jàjj foofu tamit kën que ne na def très attention que ne Sonko bu ñu génnee nii ak Jomaay na fexe bu loxom bu mu laalate mu mu mu laat leen ak kenn ku mu doon bu mu tëjati kenn na bay affaire yi ñu ngi ko établir nii mu continuer nii na bañ campagne yi ñu bu fekkee ñëpp xam ku war a falu mu falu mu yore réew mi jàmm na ñooy man loolu rek laa koy ñaanal parce que jàmm rek lañ ñu xam Sénégal waaw jàmm daal na sax si Sénégal daal loolu rek la xam. loolu président Sall. lu ma koy wax euh, def na woy boo xam ne fii tey mënul fay kenn du ko fàtte parce que doomu jàmbur rey na fi doomu jàmbur yi c' est ça on le dit waaw ah, moom moo ko provoqué. moo ko provoqué parce que bu demoon lu waroon def loolu du fi amee waa moo ko provoqué ko nag na ñaan yàlla na dem ak jàmm na bàyyi suñu réew mi ak jàmm moom fu mu dem nag moo xam fu mu jëm. bu lu mu fa tegee nii nag duñ ko fàtte buubu ay àll ba suñu doom yi sax duñ ko fàtte parce que xale léegi seen seen seen seen xel comme comme comme ordinateur dañuy capté du ñu fàttee xale yi tuuti ngeen laaj rek ñu ne Macky Sall na dem na dem kon nag yaa problème yaa problème lu ñu koy ñaanal moom ak ministre am yëpp ñu ngi dem seen yoon te bàyyi ñu suñu réew ak jàmm te jàmm la ñuy xamee waaw yàlla yaa jàmb yàgg. waaw <laughs> amul benn problème man maa leen gën a kontaan seen liggéey li nga leen def li ngeen def nii rafetlu nañ trop parce que sénégalais yi sonal nañ trop ngeen di wër di laaj seen xalaat ñu leen wax seen xalaat ci li ñu nekkee tamit loolu ñu ngi si seen seen seen teewaay bu baax a baax di leen gërëm di leen sant yàlla yàlla suñu borom ba barkeelu seen liggéey ba merci ay Aïcha ñu ngi fi nga xamante ne mooy cité kër góor gi ndax boo xoolee démb génn nañ ki nga xamante ne mooy Sonko ak Jamaay élection yi nag pëccëxoo na candidat yi bari na macha allah mais nag ñi ñoom am nañ ci wàll ndax boo xoolee tey nee naa la jeunes yi ñoo faloon ki nga xamante ne mooy président Macky Sall bu ñuy folli tamit ñooy folli bu ñuy falaat ñooy falaat comme ñoom am nañ ci wàll dama koy nuyu sëñ bi nuyu naa la. Ah, ñu ngi lay fay. waaw waaw di euh, Moustapha Kounta waaw ñu ngi waaw waaw de lañ ci am moom wax dëgg fa yàlla parce que boobu ba tey ñu ngi ko doon xaar mm-hmm. bon comme yàlla def na jàmm ni génn na si jàmm ak salaam mook jomaay mm-hmm. bon léegi lu ñu war moom euh, mooy ñu focus rek mm-hmm. mooy li may wax sama mbokku jeunes yëpp bon na ñëpp euh, farlu euh, le jour J ñu dem voter si jàmm ak salaam yàlla may ñu ndam ñu àndandoo jubilé liggéey suñu réew waaw parce que fi mu ne nii moom réew moom jeune koy doxal quoi te wax dëgg fa yàlla fi mu ne nii moom pare nañ ci côté yëpp. Mhm. waaw yal nañ yàlla defal jàmm rek. Mhm. incha allah gis ñu génnee Sonko ak ak Diomaye teeyul teeyul xel. non teeyul xel mhm. bon xam nga euh, dëgg moom mooy mujj wax dëgg fa yàlla te xam nga lii moom lu war la waaw. Euh, ci li ma jàpp sax xëy na ñoom dañ doon bañ mu ñaaw quoi ndax ñu jëlee waa ji kaso yóbbu ko pale direct. xëy na loolu lañ doon bañ moo tax sax xam nga. bon ñu teel rafetal jël rek mais bon sant yàlla waaw sant yàlla bon xam nga jaam ak pexe moom yàlla ak ndogalam aussi waaw alhamdulilah daal waaw mais est-ce que gëm nga ne élection dina am parce que ñu ngi dégg élection dina am élection. non mais dafay am élection si kàttanu yàlla incha allah dana am waaw allah moom élection dina am si jàmm ak salaam bon ñu jël ndam li su ko defee mën a liggéey suñu dëkk incha allah. mën nga xaar Jomaay euh, ak kii ci ci campagne bi. Euh, euh, Sonko. waaw incha allah. Sonko dana ko taxaw dana ko jàppale waaw ndax ñoom ñaar ñëpp benn lañ waaw wax dëgg fi yàlla côté boobu moom tiituñu ci benn yoon waaw te waa ji nit ku gore la moo tax xam nga nit moom soo àndeek moom moom euh, mu gore kooku sa xel day dal suñu xel dal na côté boobu. waa metti na yombul. yombul mais bon suñu réew moo ñu ko jaral aussi. waaw parce que suñu réew moom dañoo war a taxaw liggéey ko. te ci kàttanu yàlla danañ ko liggéey la mu laaj rek incha allah danañ ko def. ci kàttanu yàlla yàlla may waaw wax dëgg fa yàlla candidat yi bari nañ lool lool lool mais bon soo xoolee fi mu ne nii benn kandidaa ngay dégg euh, ku dul Diomaye loolu sant yàlla la waaw alhamdulilah daal bon ñu ngi xaar daal la jour J bon ñun ñëpp ñu mobiliser wu génn dem voté wu yàlla mooy ñu ndam. Mhm. waaw kese ah. ñu àndandoo liggéey suñu réew. Ah. ok jërëjëf sax ok rafet na merci ah, beaucoup. tey nee naa la am na solo Aïssa ba tey ne réaction yi la ut ndax boo xoolee génne nañ xamante ne mooy Sonko ak Jamaay ñu ngi nga xamante ne mooy cité kër góor gi toog ak jeune yi nekk cité kër góor ñoom it am nañ ci ay réaction lu ñu war a wax ndax génn bi démb ñu ci bëri wax dëgg yàlla kontaan mais am na ñoo xam tamit parce que boo gisee ñi nangu il faut ñuy bañ mais ñii tamit il faut ñu wax xam ne mu lañ gisee ki nga xamante ni mooy génn Sonko bi ak maa lay fay soxna si. maa ngi si jàmm bu baax rek. bi nga toogee sa kër ne génne nañ Sonko ak Diomaye. kontaan rek man moom yàkkamti woon naa Sonko génn ndax moom mooy sama président. Mhm. waa ndax ñun jeunes yi li ñu bëgg moom moo ñu ko mën a defal fu mu toll nii ndax doo xoolee ñun ñii ñëpp dañoo yoroon suñuy métier di liggéey mais ba Macky toogee ba léegi ñun gisatuñu suñu bopp si dëkk bi te li lim ñu wax moom dal na suñu xel te lu ñu proposé tamit lim ñu wax ñu gis ko tamit ñun gis nañ ko gëm nañ ko bëgg nañ ko ba noppi waaw ah, Sonko rek na ñuy topp. mais ku bëgg toog nii ngay wax gis man seetlu naa Macky Sall ni mu waxee ak ni Sonko waxee ñoom ñaan ni ñu waxee bokkul sax ndax Sonko dama ñuy gis si moom diine di gis si moom dëgg ñun looloo tax ñu topp ko ma tey bu ñu gisu woon loolu duñ ko topp mais Macky moom li ñu waxoon gisuma si dara man maam Cheikh waaw sama gars yi ma àndal tamit gisuñu si dara ñu ngi nii toog di cag-cag di xaar mais bu Sonko ñëwee cag-cag bi dafay jeex. ndax du boobaa dañuy delluwaat suñu place yi di liggéey dëkk bi di neex naajement ñu loolu nañu gis fu mu toll nii waaw. mais information ñu ne élection du waaw gars yi moom ñu ngi koy wax ndax élection moom bu amul parce que ni Sonko moom génnam bii rek wane na ñun ñoo gañe fu mu toll nii te dara xewagul. waaw voté guñ mais bu ñu voté xam nga démb sonné nañ si guddi gi mu leer naññi te dara xewagul bu ñu voté tamit dañuy bàcc waaw ñaari ndam gay yu leer naññi. waaw ñaari ndam yi mooy génn Sonko bi demb am nañ si ndam. bu ñu demee élection tamit dañuy am ndam bu ñu ko sàccul waaw loolu nay leer waaw maa wax loolu. gis bëri na ay candidat waaw bëri na ay candidat mais candidat yëpp ñun gondi ñun Sonko rek moo ñu gondi ñii di génn ñëpp xool ñun gëmuñu leen ñun Sonko rek nañu gëm. Mhm. mais ci dëkk micro mu ne waaw parce que ñun Sonko ñun moom lañu mën a gëm ndax lim ñun liggéeyuñu nii mais lim ñuy wax dañ koo gëm fu mu toll nii te toogagul kon bu toogee lim ñuy wax tamit da koy def ndax loolu gis nañ ko si moom Mm-hmm. non Macky li ma koy ñaanal mu dem ak jàmm baa ñoo suñu réew si jàmm loolu dong la am lu may wax ak moom waaw. na ci yow. maa gën a bég si yéen. jaajëfati. ayca macha allah Aïssa ba tey ñu ngi fi nga xamante ne mooy cité kër góor gi noonu lay ziar. maa ngi ci jàmm baax. ñu gis tey démb ñu génne ki nga xamante ne mooy Diomaye ak Sonko. waaw kontaan bëgg rek ndax ñun Sonko mooy suñu président te moom la ñu bëgg waaw bëgg rek gën a jàpp gën a gën a takku rek incha allah waaw loolu. nga gis ñu génnee Sonko waaw mooy kontaan rek a xam ne àdduna lépp loo gis dëgg rek mooy njëkk mooy mujj ñun loolu lañ gis rek te ñun loolu lañ gis it kontaan nañ ci te kin àndal it xam nañ ci dëgg la nekk ci dëgg lay dox moo tax ñu ñu jàpp ko gën a ànd ak moom waaw ba xaar ba bis ba rek incha allah voilà. waaw àdduna loo gis moom mbooloo ñoo ciy dugg e kenn cay génn parce que président kenn lay doon doon ñaar doon ñett kon président kenn la mën a doon kon mbooloo mi mën naa bari mais kenn rek mooy génn donc kon ñun jàpp nañu Sonko rek a génn ndax mooy yor baatu dëgg bi te moom noonu gëm parce que ñoom ñaar ay doomi ndey lan te Sonko dañu bëgg Sonko moo moo tànn Diomaye nest te ñu mën xamante nan kon Sonko bu demee ba wóolu Diomaye ba teg ko ba teg ko ci bopp jox nit ñi bopp jox jox bopp boole wi kon ça veut ko du ko gëm kon ñun Sonko lañ bëgg moom fu mu ñu dugal fa la ñuy dugg ñun loolu lañ jàpp waaw loolu loolu gëm ñun ñun Sonko dugal fa la ñuy dugg lu mu ànd ànd ànd nañu ko ëppale leen am yar ak tegg ak diine ak dëggu rek la jàppee Sonko te loolu moo nekk ci moom loolu kese lañ koy jàppee du leneen waaw mais wiri wiri jaari waaw làmb jom faa dañ koy bëri mënul ñàkk <laughs> faaw waaw avance faaw ñu bëri ko mënul ñàkk ah. waaw faaw ñu jël avance bi mënul ñàkk muy tey muy suba muy ëllëg mm. waa surtout jeex na moom faaw ñu bëri ko ndax moom la moom moom yir jaan daa daa en tout cas jàpp nañ daal Sonko moom faaw mu bëri combat bi pare nañ ñun waaw ñun patriote ñun waaw mais kenn a avance bi kenn rek mën kenn rek ko du ñaar du ñett du ñeent mu mbooloo bi bokkoon ci dugg si ndab seen ndab sëpp na seen loxo kenn rek mooy génn te mooy ñun jàpp nañ mooy Sonko ndax mooy baatu dëgg bi waaw loolu la. mais noo gisee campagne ci weeru koor ah ci weeru koor gi waaw métti na moom parce que nit ñi dañuy woor ba ko campagne bi mais ñun moom ñun du ñu métti ci ñun parce que Sonko mi nu bëgg bu ñu koy sax ko yëg ndax boo xoolee dem bi mu génnee am na barano gaa yoo xam ne cag-cag yi génn nañ ah, moom wan na ko wan na ko fi nekk kon donc yaakaar naa yëguñu ko sax te daanaka ba ñu ngi ndoo ko ba yëpp gaa yaa nga fa kon yaakaar naa mbëgg moom solo ak dëgg rek moom solo lépp dëgg la dëgg rek moom solo voilà loolu la. mën Sonko wàcc terrain. ah loolu kay wax ko ca kaw Sonko day wàcc bi sol takk dàll yi waaw mm-hmm. ah, jàmmaroo kilifa gi mm-hmm. waaw. Mm-hmm. mais Sonko bu wàccee ci terrain euh, xam ne ay patriote ngeen ngeen gis Sonko après. waaw ah. mu am ah, mooy mbégte mi jàkkaarloo moom rek xéwal la barke Serigne Saliou bi ma yaakaar jàkkaarloo Sonko rek xéwal la ndax ñu ko kilifa yi bëggee ñoo tax dañ tax gën koo bëgg ñun rawatina baatu dëgg yi ñu ko yor dañoo bëgg Sonko te xam ni nga bëggee du du dëgg rek nga bëggee ndax président bu ne jaar nga fi mais ni mel yaakaar naa ci ci xolu nit ñi ak ci askan wi melu ko ci benn benn président melu ko ci ñoom loolu na boo ko gisee mooy mooy leen ma li ma la sànq rek àdduna lépp loo gisee dëgg la leneen lu dëgg ay naax la baag Sëñ Tuubaa waaw loolu la. suñu njiitu réew Macky Sall. waaw Macky mu xamoon ne kon àdduna noonu la rek da nga àdduna foto daal da nga naan jox sa morom mu naan kon fi naan naan na jox gars yi naan rek waaw loolu la waaw mu bañ waaw. pétrole yi li ma la waxee gars yi dégg gars yi ni nga ko waxee tax ko ànd ak sawaay waaw jël ndam li mu waaw loolu kese la incha allah waaw yàggatul waaw incha allah rabbi waaw noonu la. merci beaucoup kontaan. ñoo waaw.